وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سبيل أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو شيخ اللسان aw wuquufin bi xayri waqf aw idgaamin bi xayri mudgam aw ishaarin bi xayri faktubhu minna ala tamaami wal kamaali wal muhaddabi min kulli alxaal warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al aadaai wal qalbi wal lisaan wa hab lana bihi al xayra wa saadata wal bishaarata wal amaan wa laa taxtim lana bi sharri wad dalaalati wat tugyaan wa nabbihna qabla almanaaya min nawmi alxaflati walkasalaan wa aminna min asaabi alqabri wa min suaali munkarin wa nakir wa min akli diidaan wa bayid wujuhana yowma albaad wa aatiq riqaabana min anniiraan wa yammin kitaabana wa yassir xisaabana wa saqil miisaanana bilxasanaat warsuqna wa sabit aqdaamana ala siraat wa askinna wasat aljinaan warzuqnaa jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa akrimna bi liqaa'ika yaa dayyaan allahuma jalil quraan alxasima rabiha qulubina wa jalaa axzaanina wa dahaaba gumuumina wa qaa'idina wa saa'ixana ila jannati naim allahuma ijcalhu aniisana fi lwixsha wa musaaxibana fi lwixda wa musbaaxana fi zulma wa daliilana fi lxayra wa munqidana fi lfitna واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام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 salaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah sama njëriñ salaamaaleykum wa rahmatulah sama njëriñ salaamaaleykum wa rahmatulah sama njëriñ salaamaaleykum a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq min sharri gaasiqin izaa waqab min sharri nafaasaati fil uqad min sharri haasiqin salaamaaleykum a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri l-waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naas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 jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom Tuubaa di gën a di gën sunu taalibe ci moom di ko yeesal di koy di ko seereel ki ko fi nekkal mu Cheikh Ahmadul Muntaqa Cheikh Ahmadul Muntaqa ñoo ngi lay nuyu di la li nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tàmbalee ci ñi ma àndal liggéey bu alxuraan ji muy sëñ Basiiru Mbàkke bu seex Ahmadou Fadal ak sëñ Basiiru sëñ Abibu ak sëñ Xaadi Jaxate ngi ñu àndal ñëpp ak waa Muqaddamatul Xidma ak mboolem li aju ci jumaa ko daan limee ak sëriñ Xamsatu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit mi moom sëñ Sohaybu noo ngi nuyu yow sëriñ bu tedd bi di xamal ni na ko digle woon bëggee woon ko ni bu ci suñ kàttan ak àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga nu digaloon def nañ ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree baree bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga yem fa seen daara ak seen i jumaa waaye ñu ci baree bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñi yor liggéey bi xamul leen ni na ko diglee ña ngi koy defee foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war a teew lépp teew na fi bu dee wàllu xasaayit itam sëriñ xam sut defe na ko na ko digle woon mboolem kuréel xasaayit yi diggal kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu baree baree bari def def ko ci ndigalu sëriñ kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ngi la ko diggale woon noo ngi ñaan ci barke borom Touba mi ñu nekk fi wetam la ci taalibe yëpp fasal njabootuk sëñ Tuubaa bi fasal la ko ci bokk jullit yi fasal la ko ci yal na la ko yàlla defal nu fekkee ñun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu sëriñ Tuubaa gépp muy bokk jullit yëpp la nga ci fasal ci sa pol te ñëpp ñu xam ko yal na la yal na yal na ko yàlla defal ba ba mu kawee sa njort loolu dong lañ ñëwoon nañ ko ci nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga yàgg ñoo diggal ñu yàgg jëfi seen diggal tiir bu yàgg yàgg ci barkab Sëriñ Tuubaa noo sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu